mbokki jullit yi nga xam ni yéen ak ñuy suivre fii ci suñu seen Ndiassane TV eh, ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di jiital ci nuyoo boobu xalifatul am li tariqatul qadiriya Cheikh al bekay ibn Cheikh al bekay ibn Cheikh Abou Mouhamad waaye di nuyu suñu gan gi nga xam ne moom la ñu dalal tey di Cheikh Pape sambo an teg nuyoo bi ci loxoom mu tegal ñu ko mbooleem tàggkatu yonent bi nekk ci dëkk bi di ziaraat di am mbégte ak kontante ci àndaat ak yéen ci émission yi mel nii comme ni nga xamee ni waxee woon nañ leen ko ni Ndiassane TV chaque jour ak facette bi nga xam ni ci lay ñëw ak yéen kon ñu fas yéene ànd ak yéen ci suñu guddi àjjuma fas yéene ko dundal waaye ànd ko ak tàggkatu yonent bi mbooleem ku fi nekk rek tey tàggkatu yonent bi incha allah daañ ci ànd ak ñoom tey ñu dalal kenn ci ñooñu di Cheikh Pape Samba Wane koy bàyyi rek mu nuyo ci kàddu yoy nga xamni lépp lu ñuy ubbi ko mom lañ koy tijji ko waye lu ñuy tëjit lañ koy tëjee muy batu kalimatul haqq yoy bu ko defé rek ñu soga tàmbali li nga xamni mom moy émission bi incha allah. subhanallah walhamdulillahi la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi لا إله إلا لا سبحان الله العظيم لا إله إلا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm way juri yal na yàlla gërëm leen dellu rek di nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi nuy seetaan tey ci Ndiassane TV ñu fas yéene ànd ak yéen nuyo boobu nag eh, ñu tibbe ko ci kilifa gu tedd gi nga xamante ni moo jiite askan wi tey di sunu xalifatul am li tariqatil qadiriya muy Cheikh Albekaay am na Cheikh Albekaay mu Cheikh bu Mouhamad mu Cheikh Albunaama di leen nuyu ki turu rakkam yu tedd yëpp waaye di leen nuyu ci turu njaboot gu tedd gi fii yeewoo yëpp fii ci Njaasaan tey jii euh, ñu ngi leen di wax daal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan seen chaîne bii di Ndiassane bi voix et voix des ginnaaw bi ñu leen nuyoo jiital ci nuyoo bi alxalifatul am di tariqatul qaadiriya imaam Cheikh Albekaay di ñaan suñu borom yàggal ko fi ak mboolem rakkam yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. kon niñ len ko waxe won rek tay nak ñu dalal kenn tagg katu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ku nek ragne ko si kër gi muy cheikh pap sambu an ñu fasiyene waxtaan ak mom inshallah rabbi da ngeen ñi top waye tamit bu len fàtte abonné ci chaîne chaîne bi di ndiasan TV voix et voix des xaal nga xamantene chaîne banex rek mom moko ko fi taxa nek yeen la fi nekkal kon cheikh pap ginaaw ba nga rek rek dañuy dugg rek si suñu première laaj moy kan moy cheikh pap samb jeuf cheikh jeyli euh, boo nu laje kan moy pap samb xamna tontu ci tontu bu gatt rek lay doon jëm la jo xamni ni mi ngi juddo fi ci euh yaro fi ci njaasan magge it ci njaasan yalla dogal mu doon ndaw lo xamni ni dafa juddu rek xam xamé ci yoon wi nga xamanteni mom la nek mu yoonu tag yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu commencé nak di ci xuus ba fi nu fi ak si tey jii macha allah cheikh pap ba tay rek ñu wëyel ci suñuy laaj moy tag yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ngay def kañ nga ko door wa kay cheikh jey lolu danaka xawna ko ciofale sax ci laaj bi nga ma laaj legi tag bi sallallahu alayhi wasallam xamna wax ni waxtu wi lañu ko door dinañu xawa jafé ndax nak eh, nii mu demee tay ci xalé yi wala sunu njabot nga xam ni ñun dañu cee nekk ba ñoom ñu judd ci fekk ñu ci ànd kook ñun di ko def noonu la demee woon it ci ñun dañu judd xam-xamee rek fekk sunu way juru Cheikh Papa Diop nekk ci ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñi ngi fi woon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk doon way jur ci ñun kenn ku ci nekkit am ci ku la neex nga di ko toppandoo di ko toppandoo di ko toppandoo ba yàlla dogal tey jii ñu dem ba am ci tolluwaay bii nu ci toll bu ma yeboo daal ni tagg yonent bi moom dañoo juddu rek dañoo xàmmee rek nekk ci. macha allah Cheikh Pape Samb ci question bu am solo boobu waaye it ba tey ci réponse solo yooyu ba tey rek ci suñu deuxième question ñu bëggoon xam rek lan mooy sa secret ci taalif ndax gis nañu say taalif saay su rek dañ ciy gis yenn kàdd yoo xam ne amaana doo koy gis ci yenn way yi Euh, ñu bëggoon xam lan moo ci sa secret bokk na ci tout le temps ñu di ko wax te xam naa di ñu ci may tuuti sax mooy son bu am solo boobu nga xam ne yaa ngi koy wax ci yonent bi di wax ni sant naa lu war ndox di root ci taw ñeel buuru kaw suuf si ak ngelaw bëgg nañ daal nga wax ñu luy sa secret waaye nga dikkal ñu ci loolu it euh, mat ko ko ba nit ñi mën cee bég incha allah. jërëjëf Imaamul Ali euh, loolu moom xam naa moom it ni ma ko waxee léegi rek dina jafe lool. ñu mën a taxaw wax ni lii mooy sunu secret ci bu nuy bind waaye daal xam naa li ma ci mën a wax te nit ñi mën koo dégg mooy bépp yoon woo xam ne nit a ngi ci te nekk ci ak fulla nekk ci ak fayda eh, nekk ci it surtout ak yoon wu mel nii nga nekk ci it ak di ko sellal teg ko fi nga ko war a teg boole kook ña nga yaakaar nga mu dëggu ci yow am naa yaakaar ni barke faaw mu wuy si la barke nag moo man lu nekk ndax ñun yàlla dogal na jàngiwuñu fenn way tey ci wàllu arut loo ma ci indiloon bëgg ma koo laaj mënuma la ko wax waaye yàlla dogal na euh, ci nii nuy waye xam naa ni fu nit mën a waye buñ ko dégloo rek mën laa wax way yu damm na wala dammul loolu nag xëj na barke moo koy def ak bëgg li ngay def rek moom moo koy def ci nit ki euh, mu mel ni rek bu fekkente ni dina am secret daal ci ñun xam naa ne bi ci jiitu mooy bëgg ko d'abord beneen bi ci des mooy nga tarbiya ko ginnaaw boo ko tarbiyaay itam boo ci nekkee nga di ko sellal lu nekk rek mën na la cee fekk si jortu naa ne xëj na ci wàll wi ñuy bindee euh, loolu moo ñu ci wuy si ndax ba ñuy door mënuñu ko woon lu ñu dab la nga xam ni dañuy jekki-jekki rek euh, sabab ñëw ñu jël kayit dal di bind euh, mu mel ni way boobu ngay wax muy sant naa lu raw ndox di rot ci taw ñeel buuru kaw suuf si ak ngelaw Eh, bari na fu nu ma koy laaj waaye gis nga eh, way waxuma la dara waaye xaraf boobu noonu waawi way xaraf bu naqaree waye la même ci ñi bind way ci arab bariwul koy gis muy bind way woo xamante ni ci waawiye la koy defee ah, ndax xaraf bu naqaree waye la xëy na nag ñun ndimbalu sunu borom rek yàlla ñu dimbali ba ñu bind ci way ci eh, lan ci waxit nit ñi mën koo dégg mu doon loo xam ni euh, day tegu non seulement ci way waaye day doon kàddu yoo xam ni itam boo ko déggee mën koo jariñoo loolu ndimbalu sunu borom rek la lu mu ci doon nag day am sabab euh, dinaay faral di wax lu bare bare bare bare bare bari sababu woy woowu ni mu ñu dikkee ak bi nu koy way euh, ndax ci ay nelaw la ma fekk du ma ni maanaam dama jóg rek way ko xale yi nga xam ni damay ànd ñoom ku ñu ciy wax Abdallah moo ñëw doon ma seet si rek tombeek maa ngi jàppanteek ay nelaw waaye nelaw yu xóotul nag bi mu ñëwee bay dellu ma yëg ko ne ko waa kooku du Abdallah mu ne ma ahankay ma ne ko ah, mën ngaa agsi mu ne ma dama foogoon ni da ngay nelaw ma ne ko man de damaa tëdd rek foofu nelaw mu ree ma ne ko looy ree mu ne ma baatu foofu mooy lan ma ne ko baatu foofu xëj na da ngeen di xale moo tax eh, yooyu wolof du ngeen ko dégg waaye foofu boo boo déggee man la dama tëdd rek foofu nelaw li muy firi mooy dama tëdd rek daanaka ay nelaw dab ma maanaam ci biir euh, tëdd tërin wi rek ay nelaw dab ma euh, mu ne ma léegi daal dama buggoon baatu nelaw boobu nga bind ci way ma ne ko waaw ay nelaw nun ciy bindee way waaye xam nga xale yi rek ak seeni mbiir comme dañu daan toog di werante lu bare bare bare bari bind naa ay way yu bari ci noonu rek laa koy bindee keroog nag mu xoj ma ci ne ma nag euh, soo ci bindee way daal dinaa gëm ni jagle am na soo ci bindul nag ma xam ni da ngeen di euh, tatoon dangeen ngeen di taqalaatu rek waaye euh, jagle gi ngeen di wax daal dinaa ko desee gëm mu mel ni nag loolu dafa ma poussé ci ma war a jël nag kayit daal di bind pour war koo gëmloo ne ko jagle am na ci loo gis nag ma taalal ko télé mi ngi seetaan defe naa suma juumul match de football la doon seetaan moom waaye ci biir 90 minutes yi laata match bee jeex fekk na bind naa wayu ba salaatu ko bi muy jóg ma ne ko ah way wi ma doon binduloo de dafa mel ni mat na mu ne ma mat ma ne ko am na lu ma ci bind de mu ne ma waxal ma dégg ma commencé nag di wax way wi waaye laata moo jeex rek mu jóg daw maa ngi dégg ci biti mu naan neexul ba neexul waaye daal jagle am na ñun daal nañu góor góor lu jéem a def ni yéen ngir am li ngeen am moo tax ma ne la loo gis ci àddina bëgg gi daf ciy jiitu waaye tarbiya ko itam dafay am solo pour nga mën caa àgg fi nga yaakaar ni war nga fa mën a àgg euh, bi mu ma koy wayloo nag dama ko doon wax waaye comme yow da ma koo wayloo xam naa jàpp baat yëpp ndax euh, li ma ci bind il fallait ma tiim kayit wi pour mën a wax lépp mais li ma ci jot a jàpp rek euh, moom lay jéem a xool nan laa koy waxee pour nit ñi mën koo béggee incha allah. sant naa lu raw ndox di rot ci taw ñeel buuru kaw suuf si ak ngelaw. dama dem ci xew ci keppaaru new wéet ba ni selaw sonu fof nelaw coow lu aw ngelaw sànni moo fa ñëw yee ma ci nelaw samay bët ni xelaw samam xel xeraw daj ñu naa ma yow yuuxul ca kaw wayal taaharaw ma yaa rasuula yow mboolem gaa ñëw yaa ca féete kaw yoneen caat nga yaa di taaw yaa di ki raw tiim nga nu ca kaw yaay sëtu ki ñëw juddu ak be jaaw maami may calaw Ya nu te di mbaw yaay ki tax nu bay solo ka ñaw ñaw yu ti xew ak pis yu ti ñëw yomb nan la yaw yonen ya nu jox nu ñaw waji sok di ñëw ngir di jang doko do ko jox sa ñaw so beugul lu piis bi nit ki naw jox ko waaja siiw mën ko lool di ñaw xam modèle ya xew góor gi xam la xew mooy yónneen ba ñëw dàq lépp lu ñaaw bàyyi noog la yiw jël jigéen ju ndaw suul mu doon fa néew yaay ki andi yiw yónneen dàq lool ba faw kon jigéen ji yaw pariteeg yi xew bàyyi koog ña bew roy ki tax nga raw dundu geeka néew bul dëkkeelu ñaaw bés danan la yeew sànni suuf sa kaw yaa rasuula yow bés bu dee di ñëw teeru noog sa yiw tëddi nelaw ku fa dem te yiw faawu dang fa liw jaye xuy nelaw ku fi def melaw sabotaas ci yow yónneen gis na lu xasaw ñépp naan ko ñaw gis nga ndaw lu dul ko ndaw yónneen kooka moo di yow yaa fi yëg ca kaw gis jalilu ñëw noon ya naan lu yow yaay ki yëg ca kaw ndax mënoo taxaw sax ci kaw ngelaw yàlla yónni ndaw wan la yëppi réew ngay melal te yow daawuloo fa aw ñoom ña daan fa aw yéemu am ñu ñëw noon ya naan la kaw seeni bët yu ñaaw nan mujjey selaw bokk wan gannaaw taaxarus baliw ñoo kërëy te bew Babacar ñu ñëw naan ko dof nga yow ndax dëggal nga yow waa ji ca kaw Babacar ni waaw dinaa dëggal raw yéegu taaxa kaw ndax ngëm du xel mu ñaw yow mi nekk ndaw del dëkkee taxaw jaamu jox sa ndaw yàlla kon nga raw ndaxte yoonu ndaw day ratax ni kew mbaamu nit ni diw tarxiis day lu gaaw yaa rasuula yow sàkku naa ci yow bés bu dee di ñëw teeru noog sa yiw sàkku naa ci yow man bés bu saa taxaw may ma foo taxaw naa lay servi meew sàkku nan ci yow yónneen bés bu saa taxaw may nu fo taxaw ñu lay servi meew ah loolu rek lañ ci jot a jàpp ci xel mi ñu wax ko nde am na yeneen baat yu nekk ci biir wayu yoo xam ni teewlu nu ko fii ñu toog ah, lii daal mooy way yu nga xam ni moom nga nu laaj léegi eh, ñu wax ci loolu ngir eh, soppe yi mën koo béggee macha allah Cheikh paf Samb ci wax yu am solo yooyu waaye ci jajj yu am solo yooyu mu mel rek dañ koy dégg ba tey ci say biir wax Euh, lan moo tax nga waye ci waawiya te ñu gis nga def ci ay jàjj yu am solo fa tabaarakallah lu ci mel ni yow mi nekk ndaw del dëkkee taxaw jaamu jox sa ndaw yàlla kon nga raw jël nga fa yow jigéen ji yow parité yi xew bàyyi ko ña beew roy ki tax nga raw ginnaaw ba nag ñuy sàkku ci taaxa bis bu saa taxaw nañu may fu ñu taxaw ndax ñu servi ko meew lan moo tax nga wayee ci waawiya jàjje ci noonu ñu gis ay baat yu bari ñëw ci loolu yi fa tabaarakallaahu ci waawiya nga jaare ci noonu te lépp di jàjj ñu bëggoon xam lan moo tax nga wayee ko noonu. jërëjëf Imaamul Ali euh, loolu moom defe naa daanaka xaw naa ko laal sax sànq bi nga xamante ni moom laay wax xam nga bi ñu demee bay way ci waawiya euh, tooguñu rek ba yàgg ñu ne xaaral ñu way ci waawiya wax naa ni way woo gis en général souvent day am sabab buy tax nit ki def ko sabab bi nag mu ngi jóge woon ci Abdallah moomu. ci baatu mankat dama tëdd rek foofu nelaw baat boobu ma ko wax moom la ma wax nag ne ma gannaaw wax nga ma luy fof ba ma xam ko baatu nelaw nag ci laa bëggoon nga bind ci way ma ne ko waaw ay nelaw nan lañ ci bindee way mu ne ma daal xaw ma nun ciy bindee way yéen daal yéen a ko xam te yéen a wax ni jagle am na soo ci bindee daal ci baatu ci xarfu waaw boobu ma gëm ni jagle am na soo ci bindul nag ma nga xam ne dangeen di di taqalaatu rek waaye li ngeen di wax moom danaa ko desee gëm daal tey daal laa koy gëm ba faw mbaa ma weddi ko ba faw ah, mu doon loo xam ni itam jaaxle gu ma dikkal la parce que loo xam ni mësoo cee bind mësoo cee wax euh, dina jafe lool pour nga bind ci waaye bi ma commencé rek yaa ngi dégg maa ngi commencé ci way wi naan sant naa lu raw ndox di rot ci taw ñeel buuru kaw suuf si ak ngelaw xam nga euh, ndox li muy rot ci taw saa buy taw defe naa ne ñun ñii ñëpp kenn ci ñun mënuta xayma lu mu war a doon ci ay litre bari na lool may wax nag ni sant naa yàlla lu raw ndox moomu di tuuru ci kaw suuf su taw di wàcc ñeel ko moom yàlla mi nga xam ni mooy buuru kaw di buuru suuf di buuru euh, ngelaw leeg euh, mbooleem loo xamante ni rek sàkk na ko ci biir way woow itam mu fàttali ma euh, bés bu ma demee woon ci benn xew boo xam ni maa ngi àndoon ak sumay xarit waaye keroog ñu ngi toog ci benn taatu new di waxtaan taatu new googa nag nelaw ya ma fa nelawoon maa ngi fàttaliku itam daanaka riir mu foor moo xam ni mu ñu xaw a tiital la sax moo ma yee moo tax ma indi loolu nag daldi di ni eh, dama dem ci xew ci keppaaru new waaye wéet ba ni selaw soonu foofu nelaw coow lu aw ngelaw nag sànni moo fa ñëw yee ma ciy nelaw samay bët ni xelaw xam nga ko yeewu moom faaw say bët dana xool ginnaaw ba ma xoolee nag ci diggante boobu nag sama xel daal di xeraw xel mu xeraw mooy xel moo xam ni mi ngi liggéey ah, la mu liggéey jox ma ko pour ma war koo def mooy daf ni ma wayal taaxa ndax nga raw wayal yonti yàlla muhammad ndax moom rek mooy rawukaay bi lii moo tax ñu bind ci waawiya mu li ci des lépp nag ci wàllu jàjjeeg ci wàllu eh, nettali bu ñu nettali ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa dafay dikk rek ci biir woy wi ci ni ñuy bindee ndax way moom euh, bind tegale mu bari lool mën naa yomb waaye nag mu jaar yoon ba pare doon lu nit ki mën a déglu dé jële ca loolu moo xaw a jafe moo tax ñu sant yàlla bi mu ñu defalee ñu mën ci bind te ginnaaw bi ci bindee itam wax dëgg yàlla bi nu ko wanee ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci loolu ñu xamal ñu ne wax dëgg yàlla lii moom macha allah te loolu rek lañ ci jublu woon kenn ku ci nekk nag boo dégloo di nga ci gis sa bopp di nga ci dégg sa bopp pour rek mën a defaraat sa dund ndax yoonu ndaw dafa dafa gaaw lool dafa gaaw lool moo tax may wax ci biir bureau yi naan yow mi nekk ndaw del dëkkee taxaw jaamu jox sa ndaw yàlla kon nga raw ndax soo nekkee ndaw jël sa lépp jox yàlla boo nekkee mag rek yàlla lay téyel boppam kon nag eh, lii mooy sababu ñu bind ci Waawiya lii it mooy bu ñu wax ci kàddu yooyu nga xamante ni wax nañ ko ci pour képp ku ko dégg rek war koo mën a jariñoo jigéen itam boo seetloo daa daanaka lu jiitu yonti yàlla muhammad xam nga Seydina Omar daana toog ba yàgg daana wax nañu ni daana toog ba yàgg mu jekki-jekki rek di jooy daana toog ba yàgg it jekki rek di ree bi nu ko laajee ne ko Omar lu waral say ree ak say jooy mu ne li may fàttaliku di jooy mooy ci jamonoy jaahiliya booba man duggaguma ci lislaam mës naa am doom bu jigéen boo xam ne bi ma koy am dañ ma ko nëbb ba doom ji màgg ma doog a xam ni ndeke doom ju jigéen la te mi ngi doon dund keroog ma ànd ak moom ba ci diggi àll ba di gas waaye ci biir gas bi maa ngi gas ba suuf si di taq ci sama sikkim bi mi ma koy fompal naan papa bàyyil ma gasal la parce que yaa ngi bëgg sonn yaa ngi gas ba suuf si di la taq nee na waaye ma ni ko déedéet bàyyil rek ma àggale ma gas a gas a gas ba pax mi xóot ma njatt ci loos wi rek dugal ko ci suuf si noonu daal di suul nen loolu fu ma ko fàttalee rek sama yaram woñ day tuuru te xam ne lislaam moo ñu génne ci ak réer waaye indi ñu ci ak leer bi may fàttaliku di reetaan mooy dama daan dañu daan def su ñu daan voyager dañu amoon yàlla joo xam ne yàllay gàtto la yàllay ngàtto la yàlla ji bu ñu mësaana tukki ba xiif dab ñu dañu koy dammat di lekk di dammat di lekk di dammat di lekk ba mu jeex tàkk bu nu demee tukki ba dellu si nag ñëwaat defar beneen yàllay ngatoo di ko jaamu waaw ma xalaat nag moo tax saa bu ma ko xalaatee ay ree daf may jàpp yàlla joo xam ne yaa koy defar te boo xiifee lekk ko boo ñëwee defaraat jeneen yàlla di ko jaamu yaakaar ni loolu war na laa mënal dara ma xam ne daal ñun ci ay caaxaan la ñu nekkoon waaye yonent yàlla Muhammad moo ñu génn ci ak lëndëm dugal ñu ci ak leer jigéen ji xam boppam nag te yonent bi jëlee ko foofu indi ko ci euh, noblesse bu mat sëkk kooku defe naa ni lépp lu muy def tey jullit war naa mën a gëstu lu ko ci diine may mu doog caa dugg lii rek moom moo moo waral ñu bind ci way wi wax ci kàddu yooyu itam. macha allah Cheikh Pape ci leeral yu am solo yi nga xam ne leeral nga ko ba tey rek dañuy continuer ci suñuy laaj mooy ban way nga xam ne moom moo la gën a neex ci sa way ba boo koy way da ngay ànd ak yëg-yëg. waaw Cheikh Dieyli loolu it loolu it am na solo euh, Cheikh Dieyli loolu am na solo lool. ndax way moom yi nga xamante nii maa ngi maa ngi koy bu ma koy way danaa ci am yëg-yëg dëgg dëgg dëgg dëgg bokk na ci way wi ma njëkk a bind ci yontu yàlla Muhammad way woowu li tax yëg-yëg gi mooy dama ni woon man duma def kaset mukk fi ak yàlla mayu ma ma bindal ma mën a bindal sama bopp ci sama loxo bopp lu may wax ci yontu yàlla Muhammad fi ak loolu amul duma def kaset ci àddina bi ma yàlla mayee ma dem ba bind la ma ca bind boole ko ak benn woyu Serigne Mohamed Bouna bu muy jàjjee ñu bari ci àddina euh, muy célibataire jànq ak ku di sëy boobu ba woy wi jeex bii faas ni ma ko bind ci sama loxo li tax nag mu neex ma mooy euh, loolu ma ci yàlla defal ba ma mën koo bind mu àgg ba ma ko bindee ba mu àgg it ma dem wan ko sunu xalifa booba Cheikh Sidi Hadji Mambou Euh, yal na yàlla yokk leeram yàlla tas nu ci barkeem yàlla dolli dem moo fi nekk xalifa ma dem jox ko way wi bi kaset bi génnee toog na lu yàgg sax dégluwu ko waaye bés rek mu woo ma ma ñëw mu ne ma man de kaset bi bi ma ko joxee ba tey démb laay doog a wax xale yi nañ ko teg ma dégg ko waaye bi ma ko dégloo daal way wi am na xigma lool way wii nga def ci yonent bi bii moom xam naa ne Serigne Mohamed bu naa ko bind ndax mokkaloon naa ko lool waaye bii ñu def ci yonent bi ku ko bind sëriñ Mouhamed ma ne ko maa ko bind mu ne ma yaa ko bind ma ne ko waaw mu ne ma ah, yow de loo bëgg bindati boo ko bindul yow la neex kon nag maa ngi lay ñaan boo delloo nag ma bindal benn woy ci sama maam Cheikh bu Mouhamed Kunta ma dellu si nag yàlla dogal ma bind ci maamam Cheikh bu Mouhamed Kunta mooy way woowu ngeen dégg may woy ci Mamadou Mokhtar ba mu jeex bi ma ñëwee wan ko ko mu kontaan ca lool defal ma ca teraanga yu rëy rëy bi ma ci gën a neex nag mooy feuille ya ma ko bindoon lépp da koo jël tamponné ko ci cachet boppam ne ma nag lii foo dem ci àddina may dund may dee nañu xam ne maa la ko santoon te def nga ko ni ma ko bëggee woon moo tax ñaari way yooyu ñaari yu ma marqué la bi ma njëkk a def ci yonti yàlla Muhammad ak bi ma def ci Cheikh bu Mohamed Kunta borom Ndiassane. macha allah Cheikh Pape fa tabaarakallahu comme ni nga ko waxee rek. ñu bëgg rek nga dikkal ñu ci ñaari way yooyu noonu mooy bi nga xamante ne moom nga def ci yontu yàlla Muhammad ak bi nga xam ne moom nga def ci Cheikh bu Muhammad suñu yaakaar yi tey ak ëllëg nga dikkal ñu ci way yooyu noonu rek may ko mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. waaw xanaa bu ci nekk ñu tënk ko rek ndax xam naa ni way yi benn bu ci nekk gudd na gudd goo xam ni suñu bëggee way lépp moom daanaka nit ñi dinañu toog di xool di xool ba mujj tayel ñu tënk rek benn bu ci nekk ñu am kàddu yuñ ci wax rek xam naa suñu koy wax ñi ko déglu woon dinañu xam ni way bi way wii la euh, bi ci jiitu mooy bi ñu wax ci yonti yàlla muhammad booba defe naa bi ma koy ubbi ci kaset bi rek dama wax nii muhammadun bëgg naa la sunu yoneen xabiba may ma ma kontaan muhammadun bëgg naa la ko bañ bi laay nabi yonen foo jaar tabbi ca sawara waaye ku sopp nag nabi yonen ca digi kaw sara ngay naan muhammadun alhamdu cant di ñeel lillaahi buur bi nu moom teg ca di julli ci ngën gi jaam rasulullahi gannaaw gamaa ngi nazar di way muhammaduna wareef la ci man ma way ca moom rasulullahi keroog ba yàlla tuddee kun leeri sayidina keroog la gën ku mu doon ci ñun rasulullahi gannaaw galeer ga di dem di jaar ci góor ñi fi gën ba ñëw ci baay abdullahi baayu rasulullahi jigéen ju baax jëmu jël di amina la bàyyeeg leer googa faatu ci ñaari weeri rasulullahi aminatun di ko jooy amina ngay jooy amina ngay jooy baweer ya mat ca la am ki nit ñi jinne yeeg ñëpp doon xaar rasulullaay juróomi fan yu tegal benn juróom la xewoon gàmmoo di weer wa mu doon juddoom rasulullaay juddoom ga mbir ya ca xew moo jomba xew ci keneen ndax dencub yàlla la woon di xaar rasulullahi iwaanu toj na keroog bu xayre dex ga di ngiis farisa fay na billahi ngir rasulullahi ñu dëj yoneen ci bagaan bagaan ga toj ba nu tiit rasuulu ëpp na lu yiir bagaan rasulullahi seytaane yuuxute naan noon bii ma am besu tey mooy yàq man sama jëf ci gaayi rasulullahi arash ak kursi yu naan mbégteenu ñeel bésu tey ak yëppik suuf ca kaw te gëm rasulullahi sëñ seyduna muhammad mi may bëgg a way boo demee ba ca biir biir maa ngay wax naan rasulullahi ku ko bañ def naa la noon abadan waaye am naa cofeel ci ki gëm ni mooy rasulullahi su am na ree ma bew ba fàtte yónneen ak ñi fi gën yal naa di ñàkk ba dee te gëm rasulullahi yàllaahu yow mi ma moom su dund dee taxa bew yal nag ma faat ba ma fekki sayidi rasulullahi def naa ay istixfaar ci lépp lu ma mës a juum di ñaan nga doon avocat ci man rasulullahi Besbo booba suuf si go ba génne lu mu mës jël ku nekk naan lu fi xew dalal ma rasulullahi naqar wi jar di xalaat ci àddina mooy jullit bu am takk ndeer doom jooju dund ba dee bañ a gëm rasulullahi sayduna muhammad ju doom ga suuf samu xew muy màkka bàkku na naan suuf dootul teeru ku mel ni rasulullahi ma dina bàkkute naan su doon xëccoo gañe naa ndax denc naa ki fi gën di seydi rasulullahi alxaaji yow mi fa jëm yóbbante naa la nuyoo nuyul ma sama ak sa soppe saydi rasulullahi salli wa sallim ala muhammadoog ñi fi gën di saaba yaa ki ñoñam ñëgëm rasulullahi ñaan naa ci barke yot neen jéggal ci ñaar ñi ma ak bépp ndey wala baay bu gëm rasulullahi muhammadun bëgg naa la Ah, loolu dañ ko tënk rek ci yontu yàlla Muhammad indiwuñu lépp moom itam xam naa ñi déglu kaset bi nañ xam ne indiwuñu lépp ci ni ñuy wayee sax di nga sentir ne am na lu ñuy fàtte ndax du tout le temps lañu koy way te it maanaam këruwuñu baat yi itam waaye ñu xam rek ni li ngeen ñu ko laaj moo tax ñu ànd ci loolu beneen bi ci des <clears throat> defe naa mooy bi ñu def ci euh, Cheikh bu Mouhamed Kunta borom Ndiassane booba it ba ma koy door euh, di way ca kaset ba defe naa maa ngi ko commencé woon ci fi ma naan ma dooy Muxtaar Mustafa maami Cheikh bu Kunta baax ma Muxtaar Moustapha maami Cheikh bu Kunta baax Mamadou Lamine baax naay Muxtaar Moustapha maami Cheikh bu Kunta baax santati naa ki kenn mënul waaw waaw te mooy mënal ku mën ci di buur bi jël muhammadun tànn ko muy ki gën ci ñun ne leen julli waar na kuy jullit waawaaw te julli go gañeel lamin muhammadun moom mi tee ñu neen man julli naa ca moom ma gën ki tax ma jël man pilim di way waawaaw arab la baay ba moo jógee Algérie ñëw ba gis magam ca bulan waar ca abu xalifa seydi cheikh sidil muxtaar du moo yabal cheikhal bu naama sénégal ngir diina leer fa gindi leen maam cheikh bu kuntiyu ba mu ñëwee kajoor la dal ëmmëri tooñ ko ci fasam ndekete mooy sabab bi tax birima doon dameel ba woon biri ma naan ko cheikh waxal ana lu doon payoor ci yow sunu sëriñ naan xanaa suuf suma toog ba jaamu man ñu àndandoo di war ba ñëw ca suufi ndànk góor gi cof ca suuf si reete naa file di dëkkuwaay bi gën ci man biri ma naan ko cheikh jëlal tebul di fàtte ñaan ci man foofa la toog ba am fa cheikh bi tax ma bind way wi man jërëjëf maam ma ko jóob li nga liggéey la yàlla def ndombak wilaaya jox la muy cheikh bu kunta sa tub ki tax ma jël pilim di way maam jamooy muhammadu muxtaar gànnaar juróom ak ñaari at la dem réewi gànnaar ca si la ngir jàngi xuraan magam jamaam cheikh albekaay ko yóbbu ba mu jàngee wala boog ba mu demee ca dëkk ba naar bu ñu naan ahmadu daw gaal lan ko joxoon diirub lu néew la def ca moom la tàmbale ca baqara ba si mboolem aaya yi mu fat ko cib dënam du neen ba mu jàngee ba dellu ca la commencé ndax daana faral di dem ca biir kajoor ba yéeme woon magam jamaam xalifa naar daana ko seet ba gis ko jël ko yóbbu kër ga cheikh bu naa fi ma ne woon a gën ci man ki tax ma jël pilim di way maam jamooy muhammadu muxtaar xam naa buñ ko toppee ah, dana gudd te dana yàgg waaye ci gàttal daal ñu ànd ci loolu rek ba yeneen question ñëw incha allah rabbi masha allah Cheikh pap ci kaddu yam solo yoy nga xamni ne nga ko lenn li nga def ko ci bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lenn li nga def ko ci setam bu bax bobu si abu Kunta radiyallahu anhu batay rek ñu jall ci sunu 4e question di laaj ban bahru ngay waye ban bahru nga gëna jekku ci bahru yi di ci waye ndax gis nañ ni eh, fukki bahru ak juroom benn li nga xam ni moom wax ni moo am ñenn ñu ni fukk ak juróom-ñaar ñu bëggoon ci xam ban baxaru nga ci waye ak ginnaaw baxaru boobu ban exemple nga ñu ci mën a jox incha allah. waaw euh, loolu moom xam naa ni li ma waxoon ci njëlbeen gi rek mooy dellu si tey mën naa ni yàlla dogal na pap li mu xam ci ay baxar sax bariwul yenn saa yi dina bind way ba way wi jeex dina ma wóor ni mi ngi tegu kon nga xam ni way moom jànguñu ko fenn. xam naa ni daal am na yoo ci basit lañ ko def te basit wax nañ ni moy bahri bi gëna jafe wayé euh amna yo xamni tawil la yoy itam sax li tax ñu xam ci tuuti moy ku melni Sidi yasin ndax yàlla dogal na dinañ ci waxtaan lu bari mom yàlla dogal na ci walu woowu limu ñu ci xamal bari na lool euh motax suma la ci dé tontu ci loolu dama nan la dal pap mom na nga yëg ne dina bind way ba way wi jeex waye du xam sax way wi ban bahr la soo ñëwul indil ko maanaam euh, lii pesé way maanaam euh, mu mu faaye lii euh, boo ñëwul indil ko lii pesé way du la mën a wax ni la way wi ci lii la tegul dégg nga parce que da ngay dégg yenn saa yi ñu naan la mu faa ilatun fa ala fa mu faa ilatun fa ala fa wala nga dégg ñu naan fa ulun fa ulun fa ulun fa ul ah wala nga dégg maanaam ci yooyu daal xam naa ci la gars yi di peser affaire yi mais li ci pap xam moom bariwul xam naa ne daal dinaa bind way te dina ma wóor ni dina tegu ci balance soo demee nag ci ñi nga xam ni ñoom ñooy eh, waykat yi ñoom dinañ la mën a wax ne la ci baxari bii la woy wi tegu waaye Pape moom wala baxar xamu ci lu bari du tee nag dinañ dem gëstu ji gëstu di gëstu ji ci ndax lu am solo la tamit ci li ñuy def baax na lool nga bind dara te bi nga koy bind nga jóg di ko bind ci baxar nàngam day baax lool waaye ñun moom way jamono bu ñu ñëwee xam naa su may bind woy moom baytu bu ma njëkk a indi daal moom nu mu toll ya de si yëpp dina toll noonu Pape moom noonu lay bindee way léegi rek macha allah ba tey du ñu taxaw foofu ndax mel na ni laajoon nañ ci exemple boobu exemple rek la ñuy laaj bu ko defee nga jox ñu ko ci bu ko defee ñu continuer incha allah ci suñuy question. waa xam nga waaw basit moom da ngay toll la rek xam nga boo jëlee eh, lu ci mel nii comme bi ma njëkk a wax sànq Mouhamadun bëgg naa la boobu boo xoolee eh, basit la. basit lañ ko waye mooy bi ma naan alhamdu cant di ñeel lillahi buur bi nu moom te ca di julli ci ngën gi jaam rasulullahi boo ko doon pesé day tolloo ak eh, wasalliyan yaa ilaa iwajisiyan abada ana muhammadan na muxtaar fil qadam fil qidami maanaam dañuy tolloo benn balance lay doon ah, loolu moom mooy basit defe naa moom mooy baat way baxar bi gën a gudd ci baxar yi pour woyee ci dégg nga bari na yu muy tollool yoo xamante ni mën nga koo tollale mën nga koo mën nga koo méngale day tolloog itam euh, day tolloog itam miim ya bu Cheikh Seydi euh, mën na tolloo ak euh, was mën na tolloo ak yaa xaaidal bahari lil asdaafu india asdaafun biha durratun ala min al jalami day tolloo it imam Busayri mawlaaya salli wasalla was wasallim daiman abada ana muhammadan nan muxtaarul fi qadami boobu ma don wax leg nga xamanteni ci bourde lako way bari na yu muy yokoy meuna tololel mu mengo waye liñu meuna xam ba xam ci dal moy xamna ni su fekke amna luñu xam ci bahri basit bobu la ak tawil te yoy yep li ma la wax sank rek Sidi yasin motax ñu ragne ñu am ràññee googu noonu. macha allah Cheikh pap batay rek mu melni comme Cheikh djeli dañ koy baye ak yow nga mom ci question yi batay inshallah macha allah eh, Cheikh Pape macha allah Imaam Ali ci question yi ak ci réponse yu am solo yi nga xamante amal nañ ko ba tey rek ñu wéyal ci suñuy laaj mooy Pape Cheikh Pape lan ngay dénk tàggkat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamante ne ñoom ñooy génération bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di tagg yonent bi ci kër gi wala ñeneen ñi nga xamante ne sax du ci kër gi. waa kay Cheikh Dieyli eh, tàggkatu yonent moom defe naa ne bi ci kër gi ak bi nekk feneen ñoo war a mën a yem comportement. tagg yonent bi sallallahu alayhi Wasallam. bu fekente ni amna secret moy li ma wax sank ci ben gi rek moy ben nit meunta jog ci dara rek ag fa mu jëm yoon sax bo joge fi di dem di nga di nga di nga bari ay dekk dekan yo rombu di nga bari keur yo rombu pour meuna ag fa nga jëm ca Tiwaawan kon nak kuy tagg yonent bi ku nek itam lima len di ñeuk conseil moy buñu yakamti buñu yakamti nanu fexe di ram parce que ñi nga xamni tay ñi ngi len ci dégg buñ la waxé at ma ñu commencé woon a tagg yonent bi ak léegi da nga naan déedéet loolu mënta nekk kon benn bul yàkkamti beneen bi ci des mooy boo ci duggee bul ci duggee ak ñàkk fayda parce que tagg yonent bi du lu ñàkk fayda ginnaaw julli julli juróom jàng alquran su ma yaboo ni tagg yonent bi amul lu ko féete kaw ci jàmm yàlla parce que itam nag yàlla wax nañu euh, digal nañu ba tàyyi te defu ko yàlla li mu ci alquran yëpp amul lu mu ci def ndax yitteelu ko waaye boo delloo ci alquran ci yonent bi rek la wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ak i malaakaam julli nañu ci muhammad kon yéen ñi gëm yàlla waaye waaye julli leen ci moom waaw kon lii dafa mel ni ndigal la loo xam ni moom def daf koo def lu jiitu mu koy digle ginnaaw lu yàlla def la nag yàlla moom lépp lu mu lay digal ba pare jiitu la ca wax dëgg yàlla lu mu fonk la kon kon tagg yonent bi gis naan dara féetewu ko kaw ginnaaw dara féetewu ko kaw ci jàmmu yàlla nag ñi koy def te ay xale nañ ko booleeg sellal bañ koo booleek ay caaxaan parce que képp ko koy def te la def ga nga koy def àndul ak sell ga na la wóor ni bala nga dee eh, di nga ci gis inconvénient yu rëy rëy rëy rëy rëy parce que yonent bi nag moo ni képp ku ma warlul genn walu satre ëllëg yomal xiyam dina la warlul aljanna te aljanna ku tilim du fa dugg moo waral taggkatu yonent bu melul ni mu war mel ci digganteem ak boromam en général bala dee mën naa sonn lool parce que xisaab lay doon ci moom mu dog fee jóg ndax lu mu dee dee dee la mu jot a tag yonent bi bu demee yàlla dana ko fay kon nag nañu góorgóorlu ci taggin wi nañu góor góorgóorlu it ci di yër téere yi parce que tagg yonent bi nii nii nii rek def ko pour passe itam mën na laa indil gàllankoor bu rëy tagg yonent bi day ànd ak jàng téere yi te kër gi li ñu bind bari na téere cheikh yaa ngi fi yenn saa yi sax nga dégg ku posé question dinaa koy gis lu bari ci télé yeeg yooyu naan waaw seen kër gi xanaa dañoo bindul moo tax ngeen di faral su ngeen di way di way yeneen kër yi waaye loolu njuumte la bu ma yeboo ne yeneen kër yi ku ci bind ci kër gi nga référé wu pour bind kër gi li fi nekk ci téere kenn xamul lu mu toll kon nag loolu xam naa du ñàkk ci beneen émission dina gën a laaj ak yaatal ba ñu xam ni li fi nekk ci mbind képp koo xam ni bind nga tey ci Sénégal laa la wax ci kër gi nga jëlee référence pour mën a bind kon nag xale yi nañu gën a góorlu yër téere yi téere yi kër gi du téere yi ñu yër téere yeneen parce que mbaax moom benn la te mbaax a ngi fépp waaye daal li gën a am solo ba gën a am solo mooy tarbiye gi toppe gi bañ a yàkkamti te boole kook di ko sellal lii rek laa leen di sant. jërëjëf Cheikh Pape comme waxtu bi xoj nañu dañuy jàll direct rek ci suñu juróom-benneelu question di laaj lan mooy say projet ak ndax yaa ngi waaj lu bees. waaw loolu it euh, imam dinañ ci tontu la ma rek laa ci tontu Pape moom xam naa ni bu fekkee am na ay projet itam du lo xamni dañuy tok tay ci télé bi wala ci radio bi nan dinañu def nangam dinañu def nangam dinañu def nangam xam nga légui média dafa doy war té yit lamiñ mën naa wax lu mu bëgg waaye mënta jëflo ay cër lu cër ya manul euh, ginnaw dal doole ji nga xamanteni ni lañuy sentu deug deug deug deug amaguñu ko nañu bayyi rek ba am ko su boba li nga xamni mo nek ci sunu xol té ñu fas ko feñal ci ay yéene su boba inshallah rabbi danañ ko feñal waxuma la sax kuy tagg yonent bi waaye nit ku dëkk Njaasaan rek doon doomu Njaasaan defe naa ni amoo projet yu ëpp projet euh, lu jëm ci diine ji projet yoo mën a yor tamit la ca jiitu base bi mooy diine ji yooyu yëpp nag mi ngi ci xel mi waaye ginnaaw man-man gi nekk gu fi nañu bàyyi rek ba mu ñëw damay jël référence rek ci Cheikh Sidi rahmatullahi alayhi ci wax ju mu daa wax euh, ci bi ñu nekkee ay tuut tànk ñoom mag ñi wax nañ ne moom li mu daan foo bariwul bes ay moromam nek nañu di fo di fo ba mu yag sen xel dem ci xaliss xam nga xaliss mom danaka lolu xali yep sax jaar nañ ci ñu tok nak di waxtane xaliss kenn ku ci nek nak nan man de buma yalla yàlla xaliss ni lay def ne lay def dina yobbu sama yaay Makka, yobbu sama papa Makka, dina tabax ay jakka tabax ay juma dina jëndal sama papa auto kenn ku nek rek di wax sa xalaat kenn ci ñom dal di ñew ci fekk ko fi mu tok ci tatu saket wi ne ko si di Yaxya yow bi nit ñi foo yaa ngi toog bi nit ñi di wax seen mébét su ñu amee xaalis nu ñu koy def yaa ngi toog te ba tey waxoo yow boo amee xaalis noo koy def mu ne ko oh, diw nañu bàyyi ba alal ñëw ndax dama xamul xaalis buy ñëw yéen jikko lay indaale waaw comme ñëwagul nanu bàyyi ba mu ñëw rek su ñëwee nag moom su boobaa ci ngay xam nag yéene kenn ku ci nekk ndax su boobaa kenn ku ci nekk sa yéene dina feeñ ci ni ngay defee waaw moo tax nag ñu ngi ñaan yàlla daal eh, yàlla na yàlla suturaal ba yéene ji nga xam ni moom la am yàlla dimbali ñu ba bés bu ñëwee na méngoo ak na yàlla bëggee rek incha allahu bi beneen bi ci des mooy ci wàllu ndax yaa ngi am looy waaj gi man moom souvent imaamul ali boo xoolee kaset yi ma def yëpp amul benn boo xam ni waaj naa ko ci ba ci bii nga xam ne mujjee naa koo def xale yee jékki-jékki rek gëtën ma ne ma nag force da koy def taxawuma ma ma ba ma sës ma daal di commencé bind li ma ko bind ak li ñu ko répété ak li ñu ko enregistré yëpp yëpp yëpp matul 15 jours euh, mooy cassette bi ñu mujjee woon a def noonu ca gàmm ga moo tax souvent fii may waxee yow nii tooguma di bind leen waaye bés bu nu jubloo ci cassette rek incha allah dinañu toog dinañu bind te su boobaa nit ñi dinañ leen wax lu ñu mën a déggee incha allahu rabbi nii daal moom la ñuy jëfee souvent te xam naa ni su ma amuloon xale yu may gëtan sax defe naa ni génn cassette du gaaw ci man du yomb ci man. kon nag xale yi maa ngi leen di sant bu baax ndax yenn saa yi ñoom ñoo may puus ci miir bi ba ma sës dootu ñu xam fu ñu jëm ñu mën a def nag luy bëggal soppe yi macha allah. Euh, macha allah ñu ngi jaajëfal bu baax Cheikh euh, Abdou Khadir Jeylaani waaye di jaajëfal bu baax euh, Seydina Aline waaye di jaajëfal bu baax sunu gan Cheikh Pape Samba Hann di leen jox dig daje ci yeneen i guddi àjjuma incha allah waaye di leen wax bu leen fàtte. di abonné ci chaîne bi di Ndiassane TV ngir ngeen mën di top suñu programme di wax Cheikh Pape rek dañu lay bàyyi nga tëj ko ci ay kàddu yu gàtt incha allah euh, bu ñu sañoon nag Cheikh Dieye leen koy réclamé nga ko ci bi rek incha allah. Euh, waaye Maamul Ali kon ñu dellu rek sant yàlla julli ci yent Muhammad bu baax haba haba haba haba di gërëm way jur yi bu baax yàlla na yàlla gërëm leen di ñaanalit sunu kilifa yi nga xam ni ñoom rek lañu Euh, ñoom la àndal itam ñu di ñu teg ci yoon yoon wi nga xam ni moo jëmee moo ñu jëmee ca sunu borom euh, ñu leen di ñaanal yàlla ñaan gu amul app di nuyu itam képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan télé bi di Ndiassane TV waaye di nuyu képp koo xam ni rek soppe nga wala ngay xarit wala nga am cofeel ci ñun wala sax nga toog rek di ñu xool ñu ngi lay nuyu di la jox bu baax sa wàccuwaay xam naa Cheikh ji léegi may réclamer ne ma naa tëjee rek sëriñ Modou bi euh, waaye defe naa euh, la ma ca jotoon wax moom itam xam naa ni dinaa bari lu ma ci fàtte nii sax day baax ndax day tax ñu mën di révisé waat la nga xam ni moom lañ daan bind. defe naa moom it bi ma koy way te gis nga moo tax euh, way dafa doy waar Cheikh Dieyli way li tax mu doy waar mooy gis nga bi may def kaset bi moo air bii ma way ci sëriñ Mamadou bokk na ci defe naa moom laa mujjee bind. parce que bi ma koy bind bi may def kaset bi boolewuma ko woon sax ci programme bi mais dama toog ba mu yàgg xale yi ne ma waaw yow da nga woy dafa mel ni danga nga woy xilaafa ji mais gisuñu sëñ Modou ci biir man leen waaw parce que dama woyoon maam alaaji te maam alaaji mooy doomi sëriñ Mamadou ñu ne ma nag d'accord ñu il faut nga bind ci sañ Mamadou ma dellu nag booba daanaka pour ñu dem studio li ci des matatul 4 jour ma dellu si nag ci même jour bi ay une heure matin ci laa woo tonton Ameth parce que man souvent bu may bind damay bëgg lépp lu may bind rek mu doon loo xam ne nit du ci mën a dindi leen ma woo tonton Ameth ndax xam naa ni ko xam sëñ Mamadou la ma laaj ko ci sëriñ Mamadou mu wax ma ci lu bare bare bare bare bare bari moom it ndey ndeysaan mu doon ku ku modeste ku woyof xoolal uneur heure matin ndongo lu mel ni man woo la nga décroché sa téléphone ñuy waxtaan ci sëriñ Mamadou man ak moom presque ba quatre heures du matin euh, loo foofu nag ma jël fa référence yu bare bare bare bare bari daal di continuer nag desu guddi gi ci mbind bi bët di set fekk ma salaatu woy wi mais li ci yéeme mooy bind naa ko te amul daaj amul dara dama ko dama xëy rek ñu war a dem répétition bi ñu demee ñu toog di waxtaan man ak xale yi ma ne leen ah sëriñ Modou mi mi ngeen doon wax de bind naa ci Eh, bind naa ci lu xaw a takku waaye nag defaguma ci benn daaj xale yi ne ma lan nga ci bind ma commencé di ko wax ñu ne ma yii sëñ bi kii boo deful ndànk moom mooy mooy dàq ci kaset bi man leen mais nag defaguma ci daaj kon ñun ñëpp nañu xalaat ku ci am daaj rek ñu dugal ko ma toog di xalaat xale yi toog di xalaat mais matul cinq minutes bay bu jóob moo jékki-jékki rek ne ma waat waxal premier bayti bi nga bi nga waxoon sànq ma ni ko euh, bismillah ma julliwaat bismillah ma julliwaat ci Moustapha may Mamadou rek mu daldi indi daaj bi bismillah ma julliwaat ci Moustapha may Mamadou lii moo indi air bi ah ko ah bàyyi bu dee wax dëgg yàlla tey moom ñun ñëpp gañ a ndax yow yaa indi air bi noonu lañ ko jëlee nag daal di koy way Euh, ma waye ko ci façon bi nga xamante nii noonu laa ko mën a waye mais bi mu génnee li doy waar ba doy waar mooy moom lañu mujjee bind waaye ñu bari moom la ñu gën a apprécier ci kaset bi ah, moo tax euh, noonu laa ko waxee bismil ilaa ma julliwaat ci Mustafa may Mamadu ci aat yu néew ca lañ ko sol alxuraan mu wey maam Mamadu ci at yu néew ca lañ ko sol xuraan mu wey maam Mamadu di bëccëg guddi di dem ba àgg saalu Mamadu sanc Musaa la jëkka dal nekk fa diir maam Mamadou bawoo fa dem ba kamataan lëndëm gu tar maam Mamadou bawoo fa dem ba kamataan lëndëm gu tar maam Mamadou góor gu nun naan Abdou Souley ba sopp lool maam Mamadu moo ko ni woon suufa ngi ni jël ci lu doy maam Mamadu samp fa kër dara jayit def na ko fa maamama doon naar bu nu naan xaasima doon jàngale kër maamama doon jinne doon bañ dëkkuwaay dàq na leen maamama doon seen dëkkuwaay ban dëkke woon El Hadji Maam bu mama doon tey fa la def juma jamoo dib xalifaam maam Mamadou ah, xam naa li ci des damay dem ba yàgg damay réer mais macha allah dinañ ko gën a xoolaat incha allah rabbi bés bu ñuy defaat émission bi nii dinañ leen ko waxal nii ci kii bi ba air bi jeex tàkk ndax moom it wax dëgg yàlla bokk na ci morceau yi ma neex lool. lii bi ñu ko woyee bu mu génn moom it ndeysaan xalifa bi woo na ma ne ma yow kan moo la déey ku la déey parce que lii nga wax ci sëriñ du ku xam sëriñ du dëgg moo mën a waxtaan ak yow ah, ma ne ko waaw lii moom tonton Amel laa ci waxtaanal mu ne ah mënta ñàkk lii moom ku xam sëriñ Mamadou dëgg ma waxtaan ak yow moo tax way aussi loolu dinaa ci conseiller xale yi soo demee bay way ci nit ki gëstul ci moom ba xam ci moom lu bari nga xam ne boo ko génnee moom ci boppam bu ko déggee dina ne ah xale bi de wax dëgg yàlla gëstu na ma te xam na ma loolu lu ci am solo la gis nga ma maalaaji bi ma koy njëkk a way waaye yu ma ko njëkk a du lu ma gëstu fenn dama ko dund ak moom moo tax bi mu génnee ñëpp ko apprécier mooy bi ma koy way ci leer gi ndax loolu lu jiitu sax xilaafaam la ñu ànd ca Saalum mu doon nit koo xam ni wax dëgg yàlla woyefam googu noonu moom la ñu ko xamee ba ni mu toogee xilaafa soppikuwul ba ni mu génnee àddina euh, mënuñu daal lu dul ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla dolli yërmandeem te taas nu ci barkeem ak ña ko jiitu woon ñëpp ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf